salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Balla Balla bett nga ma trop chaque jour damay wax Ballaay sama mbër boo ñëwul mu ñëw boo ñëwul mu ñëw da ngeen a war a xam ne làmb ji gars yi dañuy fay man tey lu ma mus sa def laa def sama live tey dix mille personnes ñoo doon seetaan ah quatorze oro laa fay pour wan gaa yi làmb ji quatorze euros quatorze oro xaalis bu bari la bu dee làmb yi nii lay mujj ay mi maxi nii yooyu ñu bàyyi ko gaa yi dañuy liggéey di jënd seen xaalis làmb ji lan war a aj bu fekkee dafa umu ba kanam nan aj làmb ji Balla lan mooy sa yoon ci gaañu Bombardier loolu arbitre yee ko war a xool ndax daa gaañu wala gaañuwul doo ko fa fekk nga dóor ko nga song ko Balla nelaw nga nelaw nga quoi doo songu kii nga ñëw fekk si ko mat si niil mat si niil mat si niil mat si niil non tey bett nga ma Balla sama mbër nga nag yow rek laa bëgg yow kese laa bëgg yaay sama mbër waaw du ma man lu dul encouragé la di la wax ne fi nga teg sa dànk foofu la mais tey moom tey moom non je suis choqué daal je suis choqué lu am solo parce que da nga ne en tant que arbitre sifflé wul yow mënoo wax ne kii mooy gagné mais tey violence est ce que mun nga cee wax ne la xewoon dina amaat bii di ñëw wala. lu gën a pire ci combat Balla ko xaar bu ñu jugul jël seen ay matukaay la gën a pire te buñ sax xale yi ñoo dëj ba pare xale yi dañoo dëj ba ak Bombardier la. Balla Gaye Bombardier yuuxu dina jub fuñ ko foogeewul nag barke maam Cheikh na Cheikh Sadou Habib bu combat passé dem leen vaar yuuxu dina jub fuñ ko foogeewul waxkat yi nañu teey ndax yaa ngi may dégg bul ni man tey du ma ni yow yaa ma neex yow laay faral ba fu ma toog ni yow yaay daan damay xool lu logique ma wax ko ak li nga xamante ni moom laa gis war a am logique sax da ci amul gis nga ñaankatu yàlla ak seetkat boo demee bay wax na doon loo teg sa bët jaxaran ndax yaa ngi may dégg bul à peu près bul xool palmarès bul xool riche wax laam ndaxte yàlla dëgg la bëgg te ku nekk ay malaaka nekk ci sa mbagg man nag je suis très mal placé ndax li tax ma mal placé mooy dama di yaay te man mbër yëpp laa bëgg mbër yëpp laay ñaanal moo tax duma wax waaye incha allah rek bu leen neexee bu combat Balla Gaye ak Bombardier ñoo leen viser seen ay caméra def direct su arbitre sifflé ma wax leen kuy daanta du moy am na solo ñun kañ dina ñëw maman Cheikh kii taalibe Cheikh naa jour <laughs> jour combat bi <laughs> jour combat bi moom salon bi xaar ñu. daf fii la ñuy toog la.